ñu tribunal joxe dëgg. Mm. mais li yoon wax. Mm. mooy que day toog juróomi at du bokk ci ci ci fichier bi. Mm. ba mu des réforme yi am nii. Mm-hmm. nga xam ni. ala ah, ma tax ngay soulever loolu yow tamit. non dama lay expliquer rek. pour pour mu leer nga koy soulever nii. non non pour du bokk du bokk ci fichier bi. parce que parce que parce que parce que parce que dëgg. Ah. moo baax. dëgg. mooy mujj toog di naxaate bis bu nekk nga wax dara après mu mujj ci ci naxsaay defe naa loolu moo ko jarul c'est ça c'est léegi hmm? L29 bi ci dialogue bi hmm. dafa wax ni que tëdd peine biñ la daan boo amee grâce après. wala amnistie waaw wala amnistie. man hmm. nga dellu ci liste yi. Hmm. donc cinq ans yooyu noonu. moom bu amee grace wala amnistie. Hmm. day wàññeeku yam ci juróom benn weer. très bien loolu leer na alors ñu ngi ñu ngi jëm ci 2024. bu nga xam ne seen coalition benn Bokk Yaakaar bi nga bokk parce que Alliance pour la République ca nga bokk. am na candidat muy le candidat Amadou Ba. ah face à d' autres yi nga xam ne ñu ngi jëm ci une élection bu bu bu xaw a ubbeeku. Mm-hmm. Euh, fan yëpp information bi euh, yow yaay def actualité par rapport à sa candidature parce que danga wax euh, tout haut que ne doo soutenir la candidature de Amadou Ba bi ngeen bokkal la coalition. Benno Bokk Yaakaar bi ngeen bokkal benn kilifa muy le président Macky Sall. le man. damay laaj rek monsieur le ministre xam nga xam nga baax na tamit. waaw nga xooloon man li ma wax. Hmm. ba pare. Mm-hmm. man waxuma du ma ko soutenir. Mm-hmm. lan nga wax déjà benn loolu mm-hmm. waxuma ko. dama ni li ma wax. daf ne ma dama ne ko man bu ma soutenirul woon bu ma àndul woon ci candidature Amadou Ba. bi ci njëkk candidat laay doon. beneen bi duma bokk ci gouvernement bu ni loolu mooy candidat man ci gouvernement laa bokk. oui ci coalition laa bokk. ñu ni Amadou Ba mooy candidat mais avant muy nekk candidat bokk nga ci gouvernement am te boobu doonagul candidat. waaw kon kay logique la nga continuer nekk ci gouvernement am déedéet déedéet après bi mu nekkee après bi mu nekkee candidat ba bare boo mm-hmm. xoolee bu baax defaraat nañ gouvernement bi. mu mm-hmm. àndul woon dama naan génne leen ma ci. Mm-hmm. c'est que man. li ma wax. nañ ma koy wax loo parce que ragaluma samay propos. donc en plus clair yow da ngay soutenir Amadou Ba en 2024. en plus clair li ma wax. duma ci dellu gannaaw man li ma wax. dama ni. ah monsieur le ministre doo wax waaw wala déet. waaw déedéet vous soutenez sa candidature ou pas dinaa la li ma wax. Mhm. dama ni man bokk naa ci ñi nga xam ne nee nañ bu Macky Sall génnee ci langue politique bi génn nañ. donc souteniroo ko. loolu man maa ko wax. beneen bi ci topp. dama ni bu ma àndul woon ci mu nekk candidat bennoo mhm. donc ànd naa ci. oui. ma bokk ci gouvernement boo xam ni moom moo koy nekk. absolument mu ni ma. mais est-ce que yaa ngi koy soutenir lu tax taxawoo ci xeex bi comme ni nga taxawee ci kii ma ni ko ku yaakaar ni que man Mame Mbaye Niang dinaa la xeexal comme ni ma xeexalee Macky Sall ndax na sa bopp. et pourtant c'est le président Macky Sall moo ko choisir. sàkku ci njabootam ngeen soutenir. mais moom tànn moom la tànn. man xanaa rus nga xanaa di nga rus tamit. le président Macky Sall la bu ñu personnaliser la. oui ay la ay principe laay défendre ay conviction laay défendre. gëm-gëm laay défendre. Mhm. man jàpp naa ni Euh, li yàlla wax rek mooy joxe nguur waaye tamit moo koy foqati foqati nag bu ko yàlla di xëcc boo xawee bañ day day metti day metti keroog demoon demoon nga ci investiture bi. mënoo mënoon mënoon mën naa ci dinaa ci ñëw. Mm-hmm. mënoon nga boo gëmee yàlla. Mm-hmm. da ngay nangu ni que suñu borom mooy joxe. mooy jël man. c'est pas une fin en soi pour ma nekk man nit laa gunge encore une fois. muy le président Macky le président Macky Sall. Mm-hmm. taxawaay bi ma am ci wetam donte politique la politique lalu ko. Mm-hmm. loolu moo tax mu jaral ma lu nekk. parce que lu ma ji la man lu wax loo xam ne sama diggante man ak moom la. Mm-hmm. te politique lalu ko du poste du leneen. lii mooy sumb nii lii mooy sumb nii. ba mu koy sumb dama cee bokkoon. man damay faral di fàttali ni que. bokk naa ci ñi nga xam ne Macky Sall demul recruter ji leen man maa jóg ñëwal sama bopp. li fi li des ci ci ci sama àdduna nit mënatuma fi jox ci nguur lu ma Macky Sall joxul. donc tànneef la man ma ni bu paree pare naa loolu sama engagement. personnel waaw donc kay yow rejoindre léegi xaaral xaaral. xaaral damaa bokk ci gouvernement bu ni Amadou Ba mooy candidat mm-hmm. liggéey bi ñuy liggéey. bilan boobu ci la war a sukkandiku. absolument pour campagne. mais c'est contradictoire. non c'est contradictoire c'est une position c'est-à-dire que yow xam nga tànk nag dañ koy tàllal baa ñu bank ko tàllal waaw non tànk dañ koy tàllal baa ñu bank ko parce que aujourd'hui pas de nuance man li may wax nii li may lan ci jour investiture bi dem waaw kay moo tax nag ma bëgg waaw non xaaral xaaral ma wax la déet investiture bi demoo demoo mais mais waa déet waa mais mais ma laaj la nag il faut pas personnaliser le débat non man waxaguma tur de. buñ personnalisé le débat non xaaral non moi je suis pas venu pour. mais je vous pose une question laissez-moi poser ma question waaw waaw mais damay damay mettre euh, débat de damay mettre benn fond. moi je suis pas venu pour personnaliser. un débat ah, mais c'est pas un de personnel je défends des positions de principe. investiture bi demuma fa parce que yëguma ko. waaw foofu laay ah. ñëwee. loolu yëg da nga politique. parce que man mii sax bokkuma APR. Mm-hmm. depuis début de semaine dernière lundi yëg naa ne APR jeudi. dañuy def investiture Amadou Ba a politique. non non non waxu politique la parce que yëg nga ko. ñàkk ko monsieur le ministre. non non ndax loolu xale yi ko. xam mm. mooy kiy xaar ci nit dara. Mm. xam nga ñiy politique nii. Mm. dañ naan non xaaral ma dem jàpp ci parce que bu faloo bu falu woon tey. waaw mais bul na yëngu waaw waaw non xaaral xaaral man mën naa la expliquer. Mm-hmm. boo ma dégloo rek dinañ comprendre ante mm-hmm. bu gis nga bu dalee léppay leer. man ñàkk maa xam moo tax nga yaakaar ni que mm-hmm. damay politique. parce que ñii ñii ñii di def man du ma def loolu. parce que gëmuma ko. yëg nga ko wala yëgoo ko. te du ma doxe. loolu moo ma jaaxal wallaahi wallaahi azim ci veille bi laa ko yëg. je vais te dire pour deux raisons. pour quelle yow xëy na li tax nga yokk mooy journaliste nga. Hmm. man bokkuma ci benn instance ak benn structure. buy campagne bu pare parrainage ak yooyu. parce que encore une fois nee naa la man ba président man sama projet laa yoroon. Hmm. pour nga mën ma comprendre. Hmm. sama projet laa yoroon. dama gëmoon ni ci njar pour njariñu réew mi président Macky Sall toogaat fi moo gën ci réew mi. ndax dëgg la wala du dëgg man en tout cas loolu moo nekkoon sama position ma jóg ci taxaw ci ji ci xeex. bam ne boqatuma ci la rangé pratiquement sama bagage ci politique. daan ni xaaral rek daan ni kii ma àndal day dem man tànn naa ni buy dem du ma fi bàyyi. waaw loolu répété nga ko sànq. loolu laa ne. léegi loolu laa la ne boo nekkee ci disposition yooyu. tu ne t'intéresses pas. waaw léegi maintenant vous avez répondu à la première question de Mouhamed mooy mm. vous ne soutenez pas Amadou Ba et tout à l'heure peut-être maa ngi naan tànk dañ koy tàllal baa ñu banque ko yaa ngi wax ne munoo ne doo ko soutenir parce que xeexaluma ko xeexaloo ko mais ci gouvernement wo nga bokk bilan la ñuy laaj ça veut am C'est le gouvernement de, de Amadou Ba. Parce qu'il est le premier ministre. C'est lui le chef Mais tout à l'heure, c'est le gouvernement de Macky Sall. Non, je suis de reprendre vos mots. gouvernement bu jiite. loolu ci wolof nañu ne gouvernement Amadou Ba. parce que noonu lañ koy waxee. man ma bëgg xam mooy qu'est-ce que vous reprochez à Amadou parce que vous semblez dénier la compétence de Amadou Ba pour que mu mën a diriger le Sénégal. non non non madame c'est pas personnel. non c'est pas oui mais Amadou Ba est une dama lay jox ñetti firnde. Mm-hmm. ni que y a de personnel. man Amadou Ba 2017 bi muy jëm milité ji parcelle maa ko dugal sama oto yóbbu ko ba parcelle tey ñu bari ñu ànd ak moom ay jaasi lañ génne ma ñëw boole ak ñaari nit taxaw di dóorante ba mu taxaw. 2017 bi muy jiite liste bi. Mm. ñu am problème campagne Barthélemy taxaw fii wax ay waxam kenn ñemewul génn. kenn ñemewul kenn ñemewul. sol t-shirt Benno Bokk Yaakaar. Mm. maay ma maa jógee Maroc jaar France jëlaale Youssou Ndour ñëw ñu campagne. Mm. am donc euh,